الكريم ذي المنن على اشتغال بفروج وسنن الحمد لله الكريم ذي المنن على اشتغال بفروج وسنن شكرته لأنه قد ساقني لوطن به نفام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñu sibur ci biir réew mi ci bitim réew ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen nuyoo fii ci kër wàllu ginnaaw bi nga xamee ne dëkk bu sell bi di Touba fan yi ab taw bu métti daf fee am jural askan wi jafe-jafe yu baree baree bari waral nag ñu bari ci askan yi bëgg ñu leen dimbali fekkoon jàmbaar yi Touba ca kanam waajuroon barab bii ngir daral fi lenn ki ñi nga xam ne dañoo amoon jafe-jafe ci wàllum inondation yi jamono ji nga xam ne ci lañuy ñuy dëgmal màggal gi ginnaaw bi nga xamee nag taw boobu ñëw na ci dëkk bi jafe-jafe yi am yàlla kon baax baral seen ay jéego lool ngir nag yeggale barab bii ngeen di gis ngir daral fi lenn ki ñi nga xam ne dañu fee loru ñu fi nag teew ci turu kuréel gi nga xam ne ku tedd ki Cheikh Mountakha moo ko taxawal tudde ko Junnatul Liman Nodama ci commission communication la ñu fi teewee ngir ñëw nag nemmeeku ñi nga xam ne ñoo fi nekk waxtaan ak ñoom ci yan situation la ñu nekk jamono ji par rapport ak situation yi nga xam ne ci lañu ñu nekkoon seen kër ñu bàyyi ko ñëw bi ñu ñëwee fi nag fekk nañ fi ay tànt yu wute yi nga xam ne moo nekk suñu côté càmmoñ mooy yi nga xam ne moo ne Touba Ca waaye nag sunu côté ndeyjoor ay tante ngi fi yoo xam ne euh, ci turu état lañ ko fi defee muy ay tante yoo xam ne mi ngi fi ñu dalal ci ñu baree baree bari ci askan wi waaye itam fii nga xam ne itam mooy sunu ginnaaw gis ngeen ko toilettes yu ñoo nekk noonu fii askan itam nekk fii ci nekkin noo xam ne wax dëgg yàlla macha allah mel na ne wuute naag lool fa ñu ne woon kon ñoom la ñu bëgg waxtaanal ngir nag ñu wax li ñuy dund fii jamono ji waaye itam laata fii fa ñu jóge woon ba agsi fii di nuyu ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di sant sëriñ bi bu baax waaye julli ci yonent bi waaye di jaajëfal mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom ñoo jéem lii suñu borom dogal mu sotti si jàmm salaam muy liggéey bi nga xam ne mooy liggéey Touba ca kanam di jaajëfal mbokki taalibe yi nga xamante ni seen i fukk la ñuy boole ak seen i juróom ak seen i ñaar dërëm di ko dugal ci liggéey bi ci Touba ca kanam fexe ba jëmmal ko ba mu mën a taxawal ay entreprise yoo xam ne yoon wi da ciy da ciy yokkoo waaye tamit sëñ bii da ci amee lim bëgg di wax ni Touba ca kanam liggéeyam bi rafetlu nañ ko baax a baax ñun nag situation yi ñëwoon ba tax ñu ñëw fii mooy suñ borom dafa dogaloon keroog si talaata suñu borom dogal mu taw taw bu metti waame wi daaneel sama miir man mii di wax ak yow dugg ci biir kër gi ba egsi si lal yi ma génn suñ borom dogal na fi ma nekk xaw ma xat ci man ci lool te borom njaboot laa ma ne nag dégg naa Touba ca kanam muy def ay ay jëmtukaay yu am solo mooy ay ndimbal yoo xamante ni euh, da ci taxaw askan wi bañ mën a génn ci situation yu nekk ma dem euh, gëstu ji ko bi ma ñëwee nag sina fekk sëñ Abibu muy ku baax di ab taalibe di ko bëgg sëñ Touba ta fa seeni ko liggéeyal bi sëñ ñëwee bi fekkee ma toog noonu dane ma ah sëñ bi yéen kat daa mel da ngeen a ñëw ma ne ko ah ma ne dama jëm si woon ci barab bi ndax damaa dégg ni waa Touba ca kanam a ko fi def mun waa loolu de loolu rek mu lañ fi def waaye kon ni ngeen defoon de am na sax ñu ko programmé woon waaye ginnaaw yéen ak si ngeen te seen kër ndox ma dafa ne mën ngeen fee nekk ba heure bu leen soobee wala heure boo xam ne suñ borom dogal na seen ndox wàññiku ngeen mën delluwaat fi ngeen newoon ndax ñu fi ñëwee ak tey maam lépp sëñ Abibu ak ñim àndal ak waa Touba ca kanam ñoo ñuy taxaw ñoo ñuy eh, jox lekk ñoo ñuy jox naan ñoo ñu jox jumtukaay yëpp ba ci oxygène sax am na ci yoo xam dañ ko fi indi suñ tuwaale léegi yëpp lu fees ñu ngi koy vidé di ko yóbbu lépp daal programme bi dëkkin bi moom aw na yoon lool loolu ñu ngi leen ci sant bu baax te di ci gërëm kon daal ci gàttal yéen ñi fi nekk ñëpp Touba ca kanam ak kuréel gii di Junatun Liman Nazama ñu leen yor waaw ñooñu ñoo taxawal liggéey bi ñooñu yor ndax ñooñuy saytu ci lépp nag suñ dara manqué ñoo ngi lekk ñoo ngi naan ñi ngi leen sant bu baax baax waa Touba ca kanam wax dëgg yàlla fii ñi fi ñëw ñi gis ñëpp ak jaaxle moo leen fi ndi te it ba ñëwee seen xel daal na li doon séentu lu ko raw moo fi nekk li nga gis ni sama gannaaw nii ak nekk sama kanam nii lépp waa Touba kanam ñoo ko fi indi te waa Touba ca kanam bëgguñ ñett nit sax bokku nekk dañoo bëgg ku fi am soxna nga bokk ak sa soxna néeg bëgguñu mu xat wax dëgg yàlla tumuraanke wuñ ci dara dara tumuraanke ko ci ndox mi ñëw na di ngeen bi ci kaw néeg boo fi gis ñetti ventilo mi wala ñeenti ventilo glace gaa ngi ñëw courant bi dara dara dara manqué wut wax dëgg yàlla li yi doy na sëkk ni nga ko doon xéwloo sa kër nu ko daw ngay xéwloo fii su ngeen demee ci waañ wi ay jigéen ñi fi nekk ay mën la ñu togg waañ ay mën la reer kafe gi ay mën lay doon mburu mag bët lépp day ñëw wax dëgg yàlla suñu taxaa moom suñu li naan ku ya ku ku ku jommi am na foo yaakaar a wéeru suñu Muntaxa wax dëgg yàlla mën na wéeru waay wéeru ci kawam boot nañu dal na suñu xel wax dëgg yàlla li doon séentu ci suñu Tuubaa lépp gis sañ ko suñu mun taxaa nga xam ne fekk mu jamono yi suñu Tuubaa fekk na sa jamono suñu Tuubaa daa mel ni fekk na jamono suñu tubaa ndax wax dëgg yàlla li doon tiit ak li doon jaaxle lépp wax dëgg yàlla ba ñëwee fii su xiinee sax da ngay fas yàlla nelaw ba yandoor doo ragalam ndox te lépp mun Muntaxa moo ñu may doole moo ñu kàttanal yàlla nag fi suñu borom bi yàggal lool te wéral ko fi wax dëgg yàlla Touba ci kanam ñoom it wax dëgg yàlla képp ku ci bokkut war nga cee mën a bokk ku ci bokkoo nit war ngaa mën a soññ sa waa kër ñu bokk ko ndax fii soo xoolee Touba li muy rëy rëy rëy koñ bu ne am na ku fi jóge am ñoo xam ne xamantuñu woon tey ñoo bokk waañ bi ñu ngi bokk ndey di bokk baay di kaf di fii ni ngi dunde wax dëgg yàlla ñu ngi ci suñu jàmm bu baax bañ jógee ci suñ kër yu taay ba tey ñu ngi ci jàmm manqué wuñ dara waaye nag li ñu gënaloon buñ sañoon day wax dëgg suñ kër ya taa ndox ma jóg fa ak man ñu mën a delluwaat ci suñu njaboot ndax wax dëgg fii neex na suñ dara manqué wut waaye kenn ku ne sa kër nga war a mën a ràcc fii nag moom dara manqué wut dimbale ngeen ñu bu baax nag ñu ngi leen ci sant di leen gërëm di leen ñaanal ngeen yàgg lool te wér mbooleem jullit yëpp barke sëñ Fall waaye nag ñu fexe nañu ko defarale bañ mën caa dellu. Ah, fan nga jóge woon ñëw fii. man fii laa jóge Arabaara Cissé laa jóge ñëw fii keroog ma fii jóge moom dañ maa génne yóbbu ci geneen kër maa gone yu ndaw yi mm, samay gone yu góor des waaye keroog ci takkusaan bañ ñu fa jëlee indi fii ak léegi man sax delluwaatuma ci kër ga ba tey nii waaye gone yi moom ña ngi fay dellu damay wax toujours nag ne man du ma wax ci sama waxi bopp ndax yàlla am na lu mu ñëwoon sëriñ Touba ñëw fi bi mu sencee dëkk bi moom fekkul ñun ñu ñu judd te def ne waj al ilahi maskani tuuba abad daa mel ni ñoo moom loolu ndax biñ jàqee bu jógee ci suñ kër yi biñ ñëwee fii suñ lépp ja yomb na waa Touba ca kanam itam yàgg nañu leen di tëgg ñu ngi leen di tëgg di continuer ndax wax dëgg yàlla seen jëf ci Touba gi asamaan la amut xejal ma xool jëf lañ fi lu rafet ñun nit jëf lañ ci nag jëf lu rafet ñi nga xam ne ñoo taxaw fi jëf taxaw nañu jëf ju rafet muy ñi nga xam ne ñoom lañ jox fi kon nag lu ñu mën a def moom mooy sant dundin moom rafet na ndax it nit ki la jox te lim la jox yéene na la ko kooku moom xam nañ ne loom rafet na moom ñi koy defar itam ñu koy defar ci anam bu mucc ayib dinu ko jox fi ñuy tëdd wax dëgg yàlla tubarkalla kon lii moom wax dëgg yàlla xëy na loo ci mënuñoo ñàkk a wax waaye wax ji moom sax moom jaru ko ci woon waaye nag mënuñoo wax ndax itam fa sakkir fi ina sikra tan fal mu'minin te dee loolu yi moom waxi yàlla la yàlla waxaat na yonent bi waxaat na ne man lam yaskuri nas la yaskuri la ku dul sant nit du sant yàlla kon war nañ leen a sant bu baax a baax a baax yal na leen yàlla defal jàmm defal leen xiiwal muj gu rafet ndax loolu rek am solo فكن بذاك قائدي إلى هداك وجنة لسالك مريد وجنة من